ba alaaji tos. lu la jaaxalati. ah yow moom kon kon ginnaaw lu ma jaaxal dimbali. bii moom munoo wax ba dimbali ma ci parce que man mii di wax ak yow. Euh, ki may bëgg a wax. Euh? Euh, ma ah, doomu nday sa doomu baay sa turandoo. ah kooku moom damay sawar a. nuyool ba pare. salaam gars yi. Eh, moom lu ma lay wax moom amul bëgg naa leen amul koy dindi nag ci njëkk maa ngi leen di bëgg gars yi leen jox seen wàccuwaay tey maa ngi ànd ak sama nouveau consultant mm. l' expert Toch mm. l'humoriste mais tamit ku xam football mm. parfois ñu toog débat mu wax ma loo xam ne mbetteel dafay am dafay être professionnel non mais taw si nekkoon heure bii dootuma xiif dootuma <laughs> yàlla baax ñu dugg ci sujet bi lan nga bëggoon wax ci Pala Santé Pape euh, Pape Gueye man Marseille laay supporté ak Barça bu baax mosuma faa gis Pape Gueye football fa li nga xamante ne moo di ak central Ah, jamono ji nga gis ne dafa rëkk non il est trop bas. ok te man dese naa kaa wóolu ci côté boobu. da cee ragal ko waaw c'est vrai que ballon pied euh, euh, conservation de ballon lépp baax na. mais boo tànnatee yenn attaquant yu gaaw yi nga xam ne dañoo am yenn vitesse yi. bu ñu rombee Pape Gueye góobo Pape Gueye dab leen. voilà dañ ciy tiit di laaj lu waral loolu it. gis naa mu def ko contre Guinée. football na ko loolu contre Cameroun. mbaa du loolu mooy wéy. non dama lay expliquer système bi nga xam ne Aliou actuellement moom lay doxee. c'est ça waaye c'est ça. Aliou Cissé moom damay boo xoolee contre Guinée sax sax la gën a baax. waaw man mais def contre Guinée damay gis Kalidou Koulibaly taxaw ci kanamu Pape Gueye. ok léegi nag foofu Koulibaly foofu nag góolu rek la def. non mais mbir mi mbir mi mbir mi yaa yey tiit nag mosoo koo gis. mosoo gis en tant que milieu défensif parfois sax mu avance. doon sax doon defu ko Séville defu ko Marseille. waaye la jaaxal tey bu boobu nag Aliou da ko indi. maanaam Cheikhou Kouyaté doon na joué rôle boobu contre Cameroun sax Cheikhou rôle boobu la doon joué. waaw maanaam mbir mi nu muy demee bu équipe adverse bi téye bal Pape Alassane Gueye dafay joué rôle troisième défenseur mooy nekk diggante kookee di Kalidou Koulibaly ak Ablaye Seck wala Abdou Diallo moo nekk seen diggante comme ñaari match yu nu mu demee léegi nag bu équipe nationale Sénégal téye bal moom dafay avancé doon sentinelle foofu day mujjee doon 3 5 wala 3 4 3. léegi bu équipe merci moom boo ko dégloo rek da lay ko day dalal sa xel non mais non mais dama lii bëgguma sama xel dal <laughs> non mais newoon naa la dinaa la tegal lépitable ba pare teg si mhm. équipe adverse bi maanaam bu téebal mhm. équipe nationale Sénégal seen système bi dafay mujjee doon 3 5 2 mooy Pape Alassane Gueye mooy doon troisième défenseur piston yi Krépin Diatta lay doon ci benn kii bi euh, flanc droite bi Ismaël Jakobs ci beneen flanc flanc flanc flanc gauche bi moom mu ñëw créé surnom ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça léegi nag gis nañ ne ne. Euh, mu ngi koy mu bal moom mu arrière. mu arrière gis nañ ne nag mu ngi ciy am réussite carrément nag boo xoolee première match bi contre Cameroun Abdou Diallo am na erreur yu mu doon def yoo xam ne pas Alassane Gueye moo ko doon combler présence am. am na benn occasion bu ma gis man dama ne man dama jaaxle. Mhm. parce que boobu boo xoolee Cameroun enchaîné nañ ci benn touche ak ñaari corner. ok lépp Pape Gueye ko indi. maanaam moo taakale waaj ñu génne touche. tous mhm. ko waaj moo dàq ji waaj waaj bi mu moom moo ko corner moom moo ko contrer gars yi dóor corner bu ñu dóoree corner deuxième corner moom moo ko mbëkkaat fee gars yi jëlaat corner gars yi bi ñu centré waatee corner Pape Gueye moo dégagé waat bal bu fekkee li may wax na da ngeen yaakaar ne ay comédie la. non mais match Sénégal Cameroun. te Pape Gueye quatre occasions yoo xamante ni c' est comme si moom kese moo nekkoon Sénégal loolu moom j' étais ému dama kontaan. te te lu gën a métti football muy joueur double rôle. Mm-hmm. di di di di di boole sentinelle bi ak mm-hmm. défense bi. Mm-hmm. tu vois double rôle lay joué te ba da ci ànd ak responsabilité boo xam ne nii man personnellement fogeewu ma ko woon niveau boobu noonu te Paa Alassane Gueye au début dafa évoluer bu baax au début mën ah, mu ngi noonu dañ koy génnee mhm. mais gis nañ ne match bi lépp lay football te li muy joxe premier mi-temps mu lay joxe deuxième mi un joueur intéressant pour l'équipe nationale du Sénégal tey moom lañu indiloon ak sama expert Toch Limoris l'ami des muuma et des sous-mouillés mu ngi noonu ñu ngi lay remercier bu baax a baax bu bu baax euh, analyse bi di ñëw ci Sada Thioub lañ koy am na gars yi à ne pas rater ba beneen ci ci ci Seydou Dame. Le drapeau n'est sa place habituelle. <laughs> So balance la dal la na balance la dal la na balance la dal la na balance la dal la ko dóor waaye. waaw yaa gaañ ok. non mu ngi nii mu ngi nii. Eh, Seex boo ko si Seex boo ko si génnal. Yes! C'est bon Les gars jàmbaar dugalal photo bi dugalal photo bi dugal on est vers kër waay waaw eh, eh, eh, bu dugal ci yaxu bu bu ci yaxu de dafa perte bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg

Ensayo. Ensayo. Ñango. Ensayo. Ensayo. Ñango. Hermane. Hermane Mane. Al Nasser. Capito. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais pas, pas viens me dropper ça. drop-moi ça. Eh

jàmbaar dugalal photo bi dugalal photo waaw ñu kese la Instagram lañ ko dugal eh, on est le vainqueur waay waaw gérard gay mel na no prix waay no rek ko wéral teel a ñëw waaw eh eh eh bu dugal Cheikhou de bu tàggee Cheikhou de dafa perte ah, bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg ara wala ara ara ah. 2010. déggu ma 2010. léegi kon benn crépé la ñuy jëkk a dégg à part avant yow. waaw. <laughs> <laughs> indi fii mais Amadou moo waroon gis mais dafa dafa dafa dafa naan tànn mu ngi ñëw waaw waaw maa ngi xool xam xaal situation bi ba xam euh, comment dirais-je damay dem fële ou pas xoolal ba xam damay dem fële bu may fële ma def la suñu avant rek